histoire bi nag mu ngi amoon fële ci dëkk bu sori woon lool fii ci Afrika bu tuddoon Taana am na benn xale bu jigéen bu fa doon dund bu tuddoon Faatu benn xale bu jigéen bu rafetoon lool amoon fukki at ak juróom benn xale bu jigéen bu rafetoon lool ñëpp respecté woon ko ci dëkk bi ndax am yitteem ak am yaram te selloon lool sax Faatu nekkoon taaw taaw ci benn famille waaye seen famille demewul woon noonu. moom foo fekk mu ngi ree di am mbégteeg bànneex. Malick nag moo nekkoon papam waaye papam amul woon doole seen moyen demewul woon noonu. Malick nag nekkoon ku sonnoon lool ndax ay bor yu bari fu nekk lépp na fa maanaam daal moom demewul woon noonu. ci noonu nag ñi mu yoreel ay borom doole lañ ñii nekk nag boo ñu fayal ne nangu sa kër gi ñi di ko menacer. ci noonu nag si la gisee benn commercant bu mag bu nekkoon ci dëkk bi mu daal di fay dem nag daal di koy wax soxla ci noonu nag commerçant bi daal di profité ci situation bi ne nag mën naa lay jàppale dimbali la waaye loxoy kajoor nag day weesaloo waaw moom du jël dara def ci dara amu ci dara voilà maanaam daal boo déggee loolu am na loo xam ne moom làq na ko ci ginnaaw bëgg na cee teg entre ci noonu nag Malick daal di jaaxle lool. xamul lenn la xam ne moom la war a def mu daal ne waaw loolu moom mooy lan commerçant bi di ko wax ne daal da nga may faatu boo ma faatu daal. waaw mën naa la fayal sa bépp bor boo xam ne amee nga ko Malick daal di jaaxle lool ndaxte bëggul forcer doomam ci leen waaye nag solution amul njëkkate li ñuy wax lépp daal faatu nga leen di ci bunt bi di déglu daal di dégg li nga xam ne moom la pàppam ak commerçant bii di waajal. bëgg ka may commercant bi te Fatou moom ah. parewul sax pour sëy ndaxte daa bëgg continuer jàngam ci noonu nag Fatou amoon na mbetteel lool mbetteel lool ndaxte xalaatul woon ni papam dina def lu dina def lu mel ni mu daa dem nag daal di jàkkaarlu papam fas yéene koo laaj ni ko papa lii nga def nii lan moo la ko jaral lu métti métti lii waroo ko def ci noonu nag papam daal di koy wax ni ko man aw ma pexe rek laa mën a def pour ñu génn ci situation bi ci noonu nag Fatou jël ay bagaasam daal di jël ay bagaasam bàyyi ba xaaju guddi mu daal di jël yoon bi daal di fàq fàq nag daal di fas yéene génn seen kër dem xamul sax fan la jëm waaye nee na fu mu dem baax na ndaxte du senaan benn yoon ñu koy maye ci mariage forcé loo xam ne bëggu ko ci noonu nag Amina mu ngi dox ci guddi gi mais xamul fenn la fu jëm waaye nag mu ngi xalaat ni maanaam liberté lum ko jëndee rek jar na ko fu seenewul sëy ji ci mariage forcé dina nag mu daal di gëm-gëmam rek daal ni maa ngi dox nag dinaa dem bu yoon jeexul wax si lu du jeex voilà loolu loolu fi ñu wax ci noonu nag muy dox ba ci yàgg mu daal di gis benn xale bu góor bu tuddoon Seefuur Seefuur daal di ñëw daal di jëga si daal di koy may ndox mu naan Amina daal di koy sant daal di koy gërëm ndaxte kat bi mu dolee dox ba léegi gisul nit koo xamante ne mën na ko jàppale dimbale ko Séfou la njëkk a gis si nit ku ko jàppale ba may ko ndox. ci noonu nag Séfou daal di koy yóbbu foo xam ne mën na fa daal di dalloo ñu toog di waxtaan nag Séfou di ko wax ay jaar-jaaram moom it mu koy wax fi nga xam ni moom la jaar ak li nga xam ne moom la ko pàppam di waajal. ñoom ñaar nag yu daal xaritoo ci xaritoo bu gaaw lool te dëggu lool tamit loolu nag daal di mayaat Fatou courage ak yaakaar fàttali fan la jógee ak li nga xam ne moom la bëgg ci àdduna ñoom ñaar nag ñu bokk fenn fi nga xam ne ñu fa lañ dëkk eh, jàng nañu napp sa fu jàngal na ko napp jàngal na ko tamit wët ay fur wi ci àll bi ci noonu nag Amina doon na góorgóorlu waaye nag saa bu toggee rek muy xalaat pap li nga xam ne moom la ko doon waajal muy centre trahison da gis ni papam da kaa bëgg trahir waaye daa fekk ne nag pappam bëgg lu ko woon lenn lu bon dafa xamul dafa amul solution rek ndax pexe moo amul woon waaye Amina moom jàppaloon na ko mer lool sax. ci noonu nag bu daal xam benn paa bu nekkoon foofu benn paa wu sëriñ bu nekkoon ci dëkk bi ñu dendal mu daal di fay dem paa bi moom mën naa xam lépp mën naa gis sax loo xam ne ñëwagul. ci noonu nag paa bi daal di xam ne kii jaaxle na te am na naqar paa bi daal koy jàpp daal koy jàppale nag di ko defal ay méditation. di ko xalaat xalaatloo di ko jàngal jëlale ak fàtte tey baale tamit. ci noonu nag Fatou commencé daal di giif. waaye nag ca dëkk ba papa moom it jaaxle na lool ndaxte doomam bii dem xamul fu mu nekk moom moo ko waral ak li nga xam ne moom la ko doon waajal papam du rëccu nag. commerçant bi daal di koy bàyyi nag bàyyi ko gàcce aussi daal di koy trahir tamit ndax ndaxte lim bëggoon moom amu ko. Malick nag daal di sentir rus li nga xam ne moom la def moom la def faatu ci noonu nag Malick daal di sol daal lam seen seeti ci faatu daal di koy jéggalu ci yoon bi nag mu dajekay li ñu koy wan wax ñu koy wax ci ngor ak responsabilité bi nga xam ne am na ko moom daal bëggul leen la dul gis faatu daal di koy jéggalu li nga xam ne moom la ko def ci noonu nag mu daal di koy mujj daal di gis mu gis ko daal di commencé di jooy ndax daal koy wax ne ko maa ngi lay jéggalu ndaxte méthode bi nga xam ne kañ naa la ko maa ngi lay jéggalu bu baax ndaxte lii du sama devoir lii waruma waroon naa xalaat leneen ci yow lu di la maye mariage force. Fatou daa toog ba ci yàgg. ba ci yàgg mu daal di koy baal ndaxte kat waajur ak nu mu mënti mel rek waajur Fatou daal du koy baal ñoom ñaar ñu daal di kottante. ci noonu nag Malick ak Fatou daal di àndaat delluwaat ci dëkk ba. waaye histoire Fatou. ndax xale jigéen yu bari dañ see jël ay leçon li nga xam ne moom la ko papa mu bëgguloon ak moom li nga xam ne moom la bëggoon. bi nag foofu lañ ko yemale. mën ngeen a abonné ci seen bi bu fekkee genre histoire yi da leen neex. te aussi man ngaa seetaan histoire yi ci kaw écran bi histoire yu neex la tamit.